tey nag euh, ñoo ngi fii ci diwaanu Mbour li sabab bu ñëw fi nag xam ngeen Serigne Ismaïla Mbacké moom Serigne Modou moom Serigne Abdou Khadir moom la baayam xaritam soppeem ba di ganese di ki nga xam mooy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir euh, porte parole yoonu Mouride euh, tax nag Serigne Ismaïla Mbacké def forte am solo ngir ñëw fas yéene teertu si ki nga xam ni mooy waajuram pour ñëpp xam ni kii nga xam di mooy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir cër bii mu defal doomam di Serigne Ismaïla Mbacké Serigne Ismaïla yëg na ko te xam na ko ay soppeem ak xaritam ak am jàmmam yëpp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 ngir ñëpp daal lay bàyyi xel day daa di féexal yow sa xol laaj la ba laaj la say cosaan.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 danaa ci lim lu tuuti man sunni yu dëgg nag la won li nit ñi ñépp sàggane bayiwuma mag ak gone seex moom fii la ma ne képp ku ronu asamaan mooy fonk ab dël bañ wor moom lum la wax fayee ko bor moom lum la dig loola la nar lii rek a tax mu néewi noon ne bàyyi seex jóob mi nga xam ne doomam mooy sëriñ Fallu moom it def teraanga ju mel noonu. moom it def ba pare nag joxe wàccuwaay wii. mooy Baye Cheikh Diop mi. nee doomam mooy di sëñ Fallou. nee rawatina taalibe yëpp. nee Serigne Medoune Diop. ak Serigne Talla Gueye. ak Serigne Cheikh Diop mi. ak soxna Faati Kebe. ñoo àndoon liggéey bi. nee maa ñoom ñoo àndoon liggéey bi. nee comme nag waxtu wi dafa xat. ca mu tombé ak timis. képp koo xam ne nii Serigne képp koo xam ne nii Serigne Touba moo la fi indi. bërëb bi waajaluñu ko woon ngir di fi siyaare. nee bërëb bi waajaluñu ko woon ngir di fi siyaare. ngir fi sëñ bi fu sëñ bi dalloo rek. nee danoo bëggoon foo xam ne bu sëriñ bi dikkee moom ñi mu àndal dalloo fa rek. bu toogee ab diir. ne bu nu toogee ab diir nag. am na mbokki taalibe yu ñuy xaar ca jumaa ja. am na mbokki taalibe yu ñuy xaar ca jumaa ja. ñu war a ñoom dem ca baas ba. ñu war a ànd ak ñoom dem ca baas ba. xam ne am am xel koy mottali. kon dafa am loo xam ne nag am xel moo koy mottali. ku fi Serigne Touba indi daal. ku fi Serigne Touba indi. ne bëggul benn yëngu di am. nañ dem toog ci ci ëtt bële. ne dafa bëgg ñëpp dem ci ëtt bi ci baas bi. noppaloo tuuti. bu sëriñ bi noppaloo ba julli timis ba noppi. ñu ànd ànd ak moom dem ca baas bu mu yewi ji mbooloo mi. waaye dañ doon sant sunu yaay ji rek. di sunu xarit. ngir cofeel gu am sunu waajur. ngir cofeel gu mu am sunu waajur wii toog. nee ca yeexoon a yëg bis bi nag. waaye bi mu ko yëgee dafa mel ne yëgoon na ko bu yàgg. ak taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñu ànd liggéey bi yëpp. ku bëgg jëmmam rek ñu bëgg. nee ku bëgg jëmi sëriñ Bassirou mii ñun ñu bëgg la. kon nee ñu ngi koy sant ak moo njabootu Serigne Modou gi fi teew yëpp. rawatina nag njabootu Serigne Abdoul Khadir gi. waaye di amaat beneen mbégte. di wax ci àndandoo bu rafet. nee li sunu borom di wax anda àndandoo bu rafet. muy jëmmi sëriñ bi moom neex na lool. lool. waaye dafa nag indiwaale loo xam ne moo nu dàqal nag ci sunu xol. muy xaritu boppam. di sunu waajur di sunu waajur. muy Serigne Mahmadan. moom Serigne Abdou Lahad. muy tawféex nee ñu am tawféex joo xam ne nii. Serigne Abdoul Khadir. ak Serigne Abdou Lahad. ñoom ñaar ñoo fi teew tey ji lu nee lu mel noonu suñ ko amee. ab yar war na cee ànd. ab yar war na cee ànd. ak i teggin bu ko defee eh, nee bu ko defee nag waxtaan wi ñu mottalee ko ca baas ba. kon na ñëpp dal. kon na ñëpp dal. ñu bàyyi sëriñ bi mu xool teraanga yi yéeg ca kaw waajal timis ji. nee na noonu rekk la ko bëgg. noonu rek la ko bëgg na ñëpp tàllal loxo kon. na kenn ku nekk tàllal sa loxo. ñu bàyyi sëriñ bi waajal timis ji.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 julli ci mbooloo lim ci am mësuma dégg ku ko am ela Maala saabu duru ñaar fukki at ak ñett it la jiite mas lu dul ba muy aj màkk muy weeru aj woowale woon ak ñetti fan ya boroom waxtuy juróom ba nii mu wuy boroom julli ba mat sëkk moom ba yàlla woo ko xeliin dibéer ji nu ko mujj a gis taxul julleem ga genn des mënta taxaw ngir yoru tiis taxul farata jenn neen wéra di day yokku wéram fu toog ma ngay sàkku yi ngërëm jaamu ga dang ko daa yërëm du tay mbaa mu jàmbatoon te nii mu mel ci ak magam baat ya néewee ña ko xam nee nañu lii moo mas a am sunna am si moo leen ci mënoon fépp bu mas na du mas a du nangu ab baat di fa jib nee na julit bu ne ci jub sa contrat nga signé woon bu noddu daanoo it jógal jàkka ja dal cay jawal ku buur bi wooni la ñëwal nga naa ma du yoon nee juli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yépp a xóot cat digg am na am na baat kenn mënta topp ñetti yoon njëlbéen waxtu dafa ca digg waxtu dapam am ba ba catal waxtu itam am na ci ñoñ mooy seen defiin Seex Jiili nee na bopp bi moo ko gënal yow donga bi jéemal roy sa sang bi fuñ no de jullil dem sa yoon gannaaw sa waay mooy ilimaan bu nee ca bopp ba du kiimaan maamum na topp ilimaan wagadu wuuteeg bopp yoon ku ne naroy cib sëriñam seex ji li moom lii di mbiram forab wanee tëll mu jam te mës la mooy nag benn yoon kër gu ne daa am luñ fa miin kër jiili julli lañ fa miin ak sunna xayril xaalamiin moo tax ñu def ko ilimaan nim fonke julli xam nga ko boo ko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp diglu ko ma wax la nim ko yite woon taw di taw di taw di taw taw di taw ba fépp taa bani foo joggi mel ni ak sa yaan nit ñaa ko naa julil ca biir ngir fépp fépp dafa niir ca taw bi daa bari te foor te daa ronaat mi ngi ngëleen mu jël bara pileem firi di xuus te wal may ter teri kanam ga leer di ler leri tisbaar la woon baxdaat la woon ba mu jullee ba ñëw mu yére yu tooy du moo tane yére yu ñuy xoyam mani nan jaamu rabbal muy gelaw ba du gis foo manaaw ajuma jooja cey la xew tuubaa la woon di takkusaan seex jiili tool ca pëtoom naa jàng leen yéen yaa salaam bañ ne ëllëg mu mel ni daam ngelaw du ngantal ilimaan bu ko defee dañuy tàmbali liggéey bu tedd bi nga xamante ni si Ismaïla Mbacke mu baax mii moo ko woote mboolem mbokki boppam yi ak wëllëre yi ak xarit yi wuy si ko bu ko defee dañuy santaat bu baax sëriñ Sidi Mbacke di jàmbaar nekk fii ci Médine bokk ci njabootul sëñ Abdou Khadir di liggéeyal sëriñ Touba bi sëriñ bi jàppee bis bi sëriñ bi dem na fa sëriñ bi jàpp ci bis bi bu baax ñi ngi siyaare bu baax njabootu maam Cheikh Gueye bëgg Bamba teew na fi bay am liggéey bay faal teew na fi teewal fi njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp rek sëriñ Basiiru moom sëriñ Baara Fadilu yónni na fi ak njabootam ñoom teew nañ fi di siyaare bu baax waa kër sëriñ Saliou Diop di njabootu sëriñ Bay Diop sëriñ Saliou Diop yónni na fi délégation bu am solo waa kër Bay Alsan Sey yabal na fi sëriñ Mbàkke Gueye mu teew fi teewaay bu am solo ñi ngi santaat bu baax waa kër Njaay xasida yaakaar naa soo ba tey ñi bi fi ànd ak ñun ci bés bi ñu ngi leen di bu baax waaye dañuy gërëm daayira ak bàyyil xadiim bu sëriñ Moustapha Ndiaye si Abdou Karim Gueye mi ngi nii toog waaye dañuy gërëm daayira lamp Maam Jaara ñi ngi nee toog ñëw nañ fi ànd ak sëriñ bi ci bis bi waaye dañuy gërëm bu baax waa kër sëriñ Moustapha Basirou di gërëm bu baax waa kër sëriñ Baye Lay Silla sëriñ Mbacke Fall teew na fi ànd ak sëriñ Abdoulahi Fall di gërëm bu baax waa kër sëriñ Mbacke Madina sëriñ Galas jiite teew na fi di gërëm bu baax daayira si Sixaar waaye dañuy gërëm bu baax soxna Xadi di taalibe seex ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm taxaw nañ ci bis bi taxawaay bu am solo waaye dañuy gërëm soxna Fatou Kebe moom sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdou Xaadir liggéey mu tedd agsi na waaye dañuy gërëm daayira yi nga xamante ni teew nañ mooy daayira mooy bu naafir bi nga xamante ni Serigne Ndiaye xasida moo fi yónnee délégation bu am solo di gërëm daayira KDPS bu Mbuur Serigne Xabban Fall yónnee na fi délégation bu am solo di gërëm bu baax daayira sëñ Mam Balla Mbàkke ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm daayira wilaaya ñoom teew nañ fi di gërëm waa kër Cheikh Mourtada Fallilou sëriñ Cheikh Sari ak sëriñ Saliou Ndiaye ñoom teew nañ fi di gërëm waa kër sëriñ Modou Kara yi Noreyni kon bu ko defee dañuy jox suñu kilifa Baye Mour Seck mu wax ci wàll wi nga xamante ni moo jëm ci autorité yi nga xamante ni ñoo teew ci bis bi jàppale sëriñ bi ci bis bi. ñi ngi jël suñu nuyoo di ko joxal ci sunu kilifa gu tedd gi. di sunu sëriñ di sunu wasila di sunu wasila di sunu sëriñ ñëw fii ci mbuur seet si doomam ji di sëriñ Ismaïla Mbàkke loolu ci wàllu waajur leeral nañ ko kon duma ci jaar fi ma war a jaar mooy bis bii biñ ko jàppee sëñ Ismaïla ñëw dagaan ko ñaan ko yàlla mi koy maye suñ borom may ko ko daf ko jaarale ay ci ay jëmm yu tedd muy sëriñ Taala Géey moom sëriñ Seex Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke mu teg ca sëriñ Medoune Diop mii di taalibeeb Seex Abdul Ahad moom sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke mu teg ca Mouhamadou Seck moom di taalibeeb Seex Basiru Mbàkke mii moom sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke kon loolu la sëriñ Medoune def ànd ca ak sëriñ Xaadim Sey Baay Faal sëriñ Medoune sëriñ Medoune sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di la gërëm ak mbooloo mi nga jiite ak liggéey bi liggéey bi nag bi ñu ko sosee sa borom dañoo dimbali mbuur gii ñu ne dafa am ci loxo yuñ ko dénk ci wàllu administratif sëriñ euh, Ismaïla ñu dem ci monsieur le préfet mu def ci taxawaayam bu rëy ànd koog ñun ca lam nu waxoon lépp def na ko gis nañ ko ku ne xam na ni mbooloo mi li muy rëy rëy am na sécurité ca loolu rek lañ ko waxoon ñu cay teg euh, Cheikh Issa Sall ki nga xamante ni moom la yàlla def muy maire dëkk bi ñu cay teg. Serigne Maguette Sène maire Malicounda gis nañ taxawaayam ak liggéeyam ci bis bi ñu cay teg Ousmane Gueye maire sali gis nañ liggéeyam ak taxawaayam di ca teg député Omar Sy gis nañ liggéeyam ak taxawaayam ci bis bi ak jàpp geeg jàppale gi ndax dem nañ ba ca këram ñu cay teg ki nga xamante ni nii de la part de monsieur le préfet mooy Serigne Moussa Faye le commissaire de Diamaguène gis nañ taxawaayam ndax agent yi nga gis njiit la di njaase yàlla dogal na mu di taalibe di Baay Faal moom la commissaire tànn ca moom lañ ko tànn lool ca moom lañ yàlla tànnal ca moom lañ yàlla jox kon nag sëriñ bi ñii lañu yàlla booleel ñii la say taalibe àndal ak jëmm joo xamante ni mooy sëriñ Abdul Ahad Sarr di jàmbaar di ab taalibe bokk ci kër gi ban yàlla dimbaleenu jàpp bis bi dem na nu gis ci mu def ci taxawaayam ak yitteem aku yëg ak monsieur le maire Fallou Silla di sa taalibe di sa mbokk di sa xarit sëriñ bi yooyu mooy li nga xamante ni moo jëm ci wàllu administratif ak Modou Gueye adjoint maire loolu moo xam ne mooy jëm ci wàllu administratif ñu may ndigal li may na autorisation boole ñoog ay homme de tenue ñi leen na ngeen taxawu bis ba lenn loo xamante ni luy ànd ak lu sëñ bi gërëmul bu ma ko fa gis ca looloon am nañ ci yaakaar kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaan nga ñaanal leen der googu yàlla def ci seen ndigg yi yàlla ko sa yokk yàlla ko sa borom barkeel man Mouhamadou sekk mii fii ma taxaw di wax ndimbalu sëriñ bi rek laa la la la ma yàlla dimbalee waaye bu ma jàkkaarloog sama sang bu tedd bii dootuma xamati lu may wax dootuma xamati lu may def waaye yàlla mi nga xam ne ku mu dimbali nga am dimbal dimbali na ma ba wax dëgg yàlla am naa tawféex kon sëriñ Ismaïla kaddu man naa gudd waaye mat geeg matale gi sama manqué la ci yàlla dogal kon bisimillahi wa inni u'iizuha bika wa suriyataha min asheytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamasati sayaatin a'uuzu bika rabbi an yahdurun laa hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim hasbuna ngi jéggalu bu baax a baax ndax ay taalibe ne sunu waajur yi bu ñu teewee waruñ leen a téye fenn waaye nag boo dajalee mbooloo dangay sant ndax woote ñu wuyu la daa jafe waaye xam nañ du suñu suñu jëmm yi lañ wuyu si waaye jëmmi Cheikh Mamadou Bassir lañ wuyu si li tax nag sama xol sedd ci waxoon naa ko fële mooy dañoo ànd ak daa ànd ak sunu wayjur sunu xarit sëriñ Mahmadan moom sëriñ Abdul Ahad loolu di lu rëy ci ñun waaye nag li tax ñu koy tënk rek ndax it maye la jox la lépp nga jël lépp it nit nit ku yiw du ko def kon dañ leen di tënk ndax coono yi ñu jógee maa ngi sant taalibe yépp ginnaaw bu sëriñ bi demee rek dañuy def sëri mu cérémonie waaye sama li ma am indi naa ko muy sama waa kër maam sëriñ Madiba Sylla waaw ah, li ma am it indi naa ko muy waa kër sëriñ Abdul Xadir Cheikh Mahamadoul Mourtala bu bu fi teewee ak Cheikh Mahamadoul Fadal ak Serigne Abdou Samad sama rakk ak sama rakk Maam Jaara teewal na ñëpp ak ak ak Cheikh euh, Serigne nga xam ne bis bi lu ci bari moo Serigne Mahamadoul Mourtala daanañ ci waxtaan lu yaatu yaatu lépp it ngir jëmmam ndax damaa wax ne ni mu ne jàkk Cheikh Mahamadoul Muntaxal Bachir nangul ko lépp te mu doon loo xam ne ni cosaan la lañu war a njëkk a gëstu it ndax tàmbali ma ba mooy boroom dëkk bii mel na ne bu ñuy tànn tur yi nga xam ne ni arab yi jàngale aw booy tudd nit te bañ a jaar ci tur wa dangay wax dëkk yam jóge boo ne borom ndookaa boroom jàpp ndal borom njuurul xel koom sa xel mi am na ci kum jëm kooku nag mel na ne liggéey bi nga xam ne ni mooy moom lay liggéeyal sañ tuka ginnaaw bu sëriñ tubaa jàllee ci jaarale gi mu ko jàllee ci Cheikh Abdoul Khader da cee defar lu baree bari loola taxoon ma ne ala kulli alil ma ne bu may wutub tool fii laa ko njëkk tàmbale ngir jiwu bu baax loolu nag am naa ci euh, résultat bu rëy ndax moom sëriñ Saliou daa am liggéey bu mu ko santoon boo xam ne cër bii ko yàlla jox jékki-jékku rek ñu jox ko ko da ko ñaq sonn ci te loolu xissa boobu yaakaar naa ñu bëree bëri xam nañ ko ci liggéey bu mu ko doon liggéeyloo fii ci Pout ba digg kawe yam ko ci diggoon jëmmam ji it ñëpp sopp ko bëgg ko te mu jël jëmmam ji it jox ko sëñ Tuubaa te deselut ci dara ba tax na dañuy wax na lépp lu ko doomu aadama waxit ci lu mën a doon ci àdduna jëm lim jël sëñ Tuubaa jël ko jaay jaay ak njureelam jëndee kook taalibe moo tax moo tax nit man ko wax lu ne te loolu jaral na ko ndax moom bi ma njëkkee dégg mu ne man lu ma waaye baax baax na ngir sëñ Tuubaa laay defal booba laa xam ne man mi danaa defaru te na yàlla wóor na ma ci sëñ Tuubaa ne ginnaaw yàlla bu ma xawee amuk coppeeku ci ku ma xamoon xamam ne jëmmam laay di jàngat di ko jàngat ba lu bëree bari lu ma doon def jomm naa ko defati loolu nag dafa mat a leeral ndax euh, image nit nit ñi li nit ñi li ñuy dégg bokkut ak li ngay jàkkaarlool. moo tax sëñ Abdou Khadre daa wax naan buñ ni nit daa bañ ñu ne déedéet bañu ko xaw da koo xaw da ko umpale rek waaye koo ko xam wala nga dend nag moom saa su ne da ko gën a sopp loolu nag laa bëggoon rek nit ñi gën ko xam nit bu jëlee léppam loo xam ne ni ku ne ci ñun am nga ci kàdd koo xam ne ni boo ko téye woon maanaam war nga cee mën a dégg lu ne mu porté lañu ko ñëpp yore kaddu yoonu murid wi hmm. wax ju wax ju baax bu ñëwee ñu séddoo ko wax ju diis duñ jël yëkkati teg ko ci kawam war nga koo fonk te sa di ko sagal di ko fonk loolu nag kuy gor muy ab taalibe wala kuy ab jullit rek hmm. war ngaa fexe ba mu jëmm ji hmm. du jëmm yi murid kese ndax fépp fu mu taxaw nit ñi naw ko te loolu sëñ Tuubaa tax mu koy def kon loolu war naa taxal ñu joxaat ko cër bi ko yàlla jox ndax koo xam ne ni suñ borom teral na la adduna ak alaaxira ba poñatum adduna wi nga xam ne lu lii nit ñi xëccoo di ko wuti ba ñu yaakaar ne moom mooy mooy li am solo mu toog fii ci télé ñëpp dégg nañ ko mu ne li may rëccu mooy li ma li ma am li ma tabax te loolu rëccu gi mooy rëccu xol la rek waaye boo ko rëccoon nit suñ borom xam ne da nga koo rëccu sa biiru xoret saa su ne dégg na yokk ndax sa liggéey sa liggéey maam la seexul loolu nag ñëw gi defaaleel nga ko sama waajuru sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xadir defal nga ko njabootuk sëriñ Abdul xadar képp ñëw gi ndax ñun suñuy dem suñuy doom seeni doom euh, rek lañu di góor góorgóorlu waaye defaaleel nga ko sunu bàyyi yu baax ja sunu mag ja sunu xarit ba sëriñ Cheikh du moom sëriñ Modou Abdul xadar di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi lool te ànd ko wér ak képp koo xam ne ni njabootuk sëñ Modou la ndax nii suñu waajur yi moo ñu fi bàyyi woon day leen mel na doomi bàjjan boobaa loo leen song daan ko waaye bu ma woote woon ñëpp ñëw te gisuma leen fi dana am gàcc waaye ñaari wàll yëpp ñëw nañ muy wàllu Mbaye Fall gi kër Sëriñ Madi Basila ak wàllu kër Sëriñ Abdul Xaadir gi kon nag ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér te képp koo xam ne ab murit nga na nga fonk jëmmam ji tey fexe ñu ci ñuy liggéey ci jëmmam ji bi ma demee ba déggoon kàddu goomu wax lu waaye wax jéggal naa ko ci laa bàyyee di tonti wax dama daa def foo ko nit waxee ma ma duma naa ci ay nit ba tàyyi te xam naa ne xamu ko loolu moom ñi ma xam-xam nañ ko bu ma lay duma lay doo xam waaye bi ma demee bam mu ni ku ma nit lu ma wax ci lu ñaaw it jéggal naa ko booba laa bàyyi ay di dóoraate gu ma xamul te booba li ma ci jublu woon mooy képp koo xam ne nii góor dong nga te nga xam ne nii danga am liñ tuddee yaradiku ba bay attaqué sa sa kilifa jàmm bàyyi sa bàyyi sa kilifa man ni danaa danaa xaw a yore eh, jëf ju mel noonu ba ba saafara ko ndax yoon yi noonu la woon biñ xawee tàmbalee xaw a moytu yenn yi la xew yenn yi xaw a ñëw waaye nag sëñ Tuubaa comme daa jekkoon di jéggale moom it mu andi mu jël yoon woowu moo tax sëñuntu ñoo def dara kon ñoo ngi jéggalu bu baax te xam ne xëy na yéene xol la ñuy waxee rek waaye taalibe sëñ Tuubaa yi jëf bari nañ kër sëñ Mor lay ak sëñ Talla Gueye ñëpp ak sëñ Medoune Diop mi nga xam mooy yoroon liggéey bi waaye buñ ko continuer duñ fi jóge gis naa euh, coono bi ak ni euh, ni ni ni ñuy waxee ngir bëgg a yeewee ko mm. te loolu it wax dëgg yàlla bu ñu mayoon ñaari minutes sax doy na ci ñun ndax lim ñu may dañu dañu jom jomb nañu nag wax dëgg yàlla ndax lim mu ëmb moo bëri daa yore kàddu ñëpp ku ne soxla ko lum la may ci jëmmam rek war nga ko sant yàlla kon ñoo ngi lu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam na damay ubbi rek jox Cheikh Modou Mourtada mu Serigne Modou mu jot leen ma kàddu yi cant ak ngërëm ci ni ma ko ko waxee sama dàmm yi mu jot leen ma ko jëme ko ci sëñ Ismaïla jëme ko ci bokk teere bi yëpp kon euh, sëñ Ismaïla ñu ngi lay jot lewaale nuyoo suñu kilifa di Serigne Mahmoud Mbacké Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne yàlla def na nga ñëwoon ba ci moom yëgal ko ko ngir xam ni mu de lim doon ci yow di sa waaye di ku bëgg sa waajur itam ci lu ma xam kon bu yàlla defee mu ñëw kon li ngay seere ci biir rek jàpp ne jëmmi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké teew na fi kon cant gi ci moom lañ koy tàmbalee bu noppi ndax bu ñëwee rek gën a rafetal jataay bi ak gó gën koo jëmmal moo tax waaye bu fi teewutoon it ma mën ko fee teewal ndax fu ma teew fu ne mën naa ko faa teewaleen kon ñi ngi nuyu bokk taalibe bi yëpp di leen sant di leen gërëm bu baax di teg cant ji ci sa ci loxo moom mii ndax cant gi sax xam naa feeñee lii rek la doon ndax dañ ko ñëwantu lool waaye waajuram di sëriñ moodu Abdoul Khadir ñëpp xam nañ sama digg moomu ndax ginnaaw bu mu doonee suñu kilifa yàlla dafa ma amoon lu ma seqaloon moom loo xam ne àdduna sépp xam nañ ko kon képp koo xam ne ak njabootam nga am njabootam nga foo yem ci man rek dalaa neex waaye wutalu ba leen frontière sama moom itam noonu la mayoon ci boppam yàlla def ñu jaar barab yu baree bari ci yéen jum amoon ci man ak cofeel goo xam ne àdduna sépp xam nañ ko fonkoon ma lool ba ma mës a rek bu ko fekkee nekku ci mbégte day daal tàggug loolu am ci man yéene joo xam ne kenn xamul fu mu yem yéene biir ak biti ndax fàttaliku naa bis yàggut sax ci mujj yi mu di ma ñaanal boo wax ba def na ma ko ay yoon sax doogu doogu yu baree bëri daane waaye li ma lay xamante mooy képp koo bokkale kenn la ci tane bu faw te loolu laa ci gën tur ci loo mën a wax kon moom jaar nañ ci bëri bi bëri bëri kon képp ku di njabootam rek kon nag si Ismaïla ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di tàmbalee cant gi ci sëriñ Cheikh bu sax xalifa ñu nga xam ne yàlla def na mooy seen kilifa yéen ñëpp te moom ci boppam nit yàlla def na ku xamoon sama digg ak sëñ Moodu la te mi koy dundal bu baax di ko dox li ma jàppoon ci waajuram te àdduna sépp xam nañ ko la ci firnde rek bu yàggut mbaar même tabaxaloon sëñ Moodu ci biir këram ba mu koy indi gërëm damaa woon ne ma bu ma soobee nga ñëw ubbil ma ko loolu lépp ay cëral la rek te noonu la koy defee man waxtu ne maa ngi fàttaliku itam moom sëñ Buxaari la ko sëñ Moodu jébbaloon ginnaaw sëñ Moodu ginnaaw sëñ Buxaari man mii la def seere ci ba muy jébbalu ci sëñ ko loolu yàgg nag quatre-vingt-dix loolu tey lii samay wéttali xol lañ. ñëpp xam nañ ko ak sëriñ Saliou ba ci sëñ bu samat ba ci sëñ Saliou sëñ am sax ak bokk yi fi teew yëpp daal ndax boo limee da waaye daal nanga xam ne ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaaxit ci yoon wi nga ne wi nga nekk ba tax ñu baax ñëpp naw loola ci ndax sëñ Tuubaa moom bu la xasee boole ci boppam wàccoo naa yow la ca sa yaa koy sàmm kon nag gis nañ nga tege ci yoon wi jug ma yoon wi nga xam ne sa waajur ci la jaaroon kon nag ñu ngi lay ñaanal ci barkeb Serigne Touba yàlla na la suñ borom dimbale dëgëral la kattanal la may la gudd fan may la wér-gu-yaram aar la sàmm la dara bañ laa ko ba nga àgg fa nga jëm di gërëm sa waa kër maam sëñ Madi bi Sylla yi nga xam ne ñoom itam ñëpp xam nañ leen doon ci sëriñ bi doon ko ci sëñ Mahmoud mii doon ko ci man mii ndax leen leen genn bokk rek la ñoom itam ñu leen sant sant sëñ Bass mi nga xam ne sama wëllër bu yàgg yàgg la ëpp na ñaar fukki at ak bokki taalib yi fi teew xam naa li des si kàddu yi rek ak cant la gu yaatu ne dama ko jox sëñ Mourtala mu jottale ma ko ci lam ne ni ma ko bëggee bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu siyaaree suñu kilifa yi toog di Cheikh Mahamadan moom Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Mahamadoul Basir ñu ngi siyaare bu baax kàddu yi moom daanaka mën naa ne daanaka teg ci dara ndax genn sa genn kàddu rek moo moo raw suñ junni kàddu tey waaye nag ndigal moom dañ koy jéem a jëfe rek waaye kàddu yi jot na sëkk li nga wax it doy na sëkk ñun ñëpp mën nañ cee tënku ci loolu seere si nag euh, mooy sant rek ci sa tànk yi ngay jóg ànd ak Cheikh Mahamadan ak njabootu sëñ Tuubaa gi ak seex seeg ñëpp ñëw fekk si sëñ Ismaayla loola nag jëmmi woy juram rek ngi dakk ci moom cofeel goo amoon ci moom ak yéene ju amoon ci moom ak ak ak yëg goo xam goo xam ne am nga ci moom xaj na ne ñun ñii nga xamante ni ñooy njabootu sëñ Moodu yaakaar naa bari na loo xam ne euh, seere leen ci ndax bari na ci loo xam ne loo seq ak moom loo xam ne xaj na sax làmmiñ mënu ko tudd waaye loolu moom maanaam ñu ñi ñëpp ëmpuñu boo gisee foo toog njabootug sëñ Modou wër la la ko waral mooy xam sant yéene joo amoon ci suñu waajur wa ñu ne ñu fas yéene yéene jooju ñu fay la ko rek te lépp loo xamante ni bokk na ci njaboot gi boo ko yëgee dootoo am jàmm fekk yitt jooju saafarawul loolu kenn ku ne da ngay jàpp ne mel na moom rek moom moom nga ko beral kon nag sëñ Ismaïla tànk yi sëñ bi ñëw da lay gën a soññ bu baax rek nan ko maasa def tànk tànk soññee te xam ne euh, mbuur euh, tey jii ñëpp la amaluk cant ndax euh, mu jóg ñu ne ko seet mu ne sëñ la sama doom loolu dara gën ko rëy kon nag lépp loo gën a nekk rek na gën a góor nañ ci nañ ci maase gën a góorgóorlu ñun ñëpp te xam ne lii aw sas rek la ndax ñoom ñii de seen jëmm yii fépp foo xamante nii teew nañ fa jëmmi sëñ Tuubaa ñoo fa teew kon nag euh, képp koo xam ne ñëw nañ ci rek lépp loo góor góorgóorlu woon ci taalibi rek war nga ko gën a yokk bu baax kon nag ñu ngi lay ñaanal Cheikh Amadou Bassir bu baax ndax kàddu yi nga wax ne nan la ko jottalee ci cant kàddu yi mën na sëkk sëñ bi daal mu ngi sant mbooleem taalibi boo xamante ni jàpp nga ci bis bi ak ak noo ko mën a jàpp noo ci mën a jàppee ak wet goo ci mën a jàppee comme man di doon rek sëñ bi nee na yëg na ko gis na ko sëriñ Tuubaa gis na ko ñu ngi leen di ñaanal kenn ku ne li nga ci jëf yàlla nañ ci daje ngërëmul sëñ Tuubaa euh, di la ñaanal bu baax yow euh, sëñ la suñ borom gën laa dëral aar la musal la musal la ci gàllankoor gàllankoor yeeg ndog yeeg lépp ba fa fa fa nga yéenee lig àgg ci liggéeyal sëñ Tuubaa suñ borom jàppale ci bu baax te jàppale ci ñun ñëpp di gën a soññaat suñ bopp bu baax nag ak mbokki taalibe yi ndax sëñ bi kat fépp fu mu teew taalibe bu fa nekk war ngeen xam ne bu yëkkatee kàddoom kàddug Serigne Touba la kon nag ñu gën a góor góorgóorluwaat ci ak taalibe te xam ne sëriñ Touba yi lépp loo xamante ni nit bëgg na ko ci am faw mu jaar ci ak taalibe te jamono ji de soppeeku na soppeeku gi mooy kenn ku ne da bëgg a doon sa kilifa bopp te boo demee ba jaaxle nee naa dem ci sëñ bi loola nag bokk na ci li ñuy mën a dimbale. mooy yoon wi Cheikh Ibrahima rëddoon muy yoonu taalibe ñu fas yéene ñun ñëpp taalibe yëpp sax ci di jëfe ndigal di bàyyi tere te bàyyi te bañ a def kilifa yi moroom ndax euh, képp koo xamante ni toog nga ne de man de awma kilifa maanaam bis dana ñëw ndax képp koo xam ne faatu na doon xalaat ndeyam doon xalaat baayam doon xalaat kenn la daal di xalaat mooy am néew moom sëriñam doon ko soxla kon nag kenn ku ne war ngaa bàyyi xel loolu bu baax a baax te xam ne li ñu sëñ Tuubaa defal maanaam kenn mënu koo defal sa bopp kon nag war nañoo góorgóorluwaat ci taalibe xamaat fi ñu teg suñu tànk di di jëfe ndigal tey xool li nga xamante ne suñu kilifa bëggul ni di ko def ñu di ko wattandiku bu baax Cheikh Mouhamadoul Basir mii nag euh, ñu ngi koy gën a ñaanal yàlla musal ko euh, ndax liggéey bi muy liggéey sëriñ Tuubaa la koy liggéeyal moom xàmmeewu ci kenn képp koo xamante ni sëñ Tuubaa njaboote na la wala lépp yaakaar na lii lu lu lu lu lu lu ñor yoon wi la moom bu koy def du ca xool dara euh, lii sëñ Ismaayla wax muy kàddu yu yëkkati loolu ak yéegukaay la ci moom rek ndax moom sëñ Tuubaa moo koy liggéeyal moo koy liggéeyloo sëñ Tuubaa nag képp ku muy liggéeyloo dana taxaw sa sa kanam nit nag mën naa jege dara war caa jëriñu ba yàqu ca kon nag nan leen xoolaat suñu bopp bu baax ci taalibe loolu rek lañuy ñuy soññee kon nag sëñ bi ñu ngi leen ñaanal bu baax sëñ la mi ngi sant bu baax di sant euh, sëñ Cheikh bi mi nga xamante ne mooy ay mooy kilifaam ak mboolem njabootu sëñ Modou Guèye ak ak njabootu euh, taalibe yi fi teew yëpp ndax boo xasee wax taalibe sëñ Tuubaa rek ñëpp dugg nañ ci biir kon nag teewaay bi sëñ bi yàlla na nga ko yàgg def nii nga jàppee njabootu sëñ Modou it jàpp gu wér la goo xamante ni maanaam euh, ko képp ku xam xam a jekk xam na la ñun waxtu woo ma daanaka néewaane ñu gis la nga toog te kenn ci njaboot gi wóoru la jëfandiku sax balaa am dana jël téléphone kenn ko ne mu woo la ne ñëwal ñëwal ñu xewul te lool it lan gisoon suñu wayjur wa seqoon kook yow te lii nga seere ci moom it maanaam euh, fi fi mu àggoon na yow ci ci ci yow sëñ Modou maanaam lu mu lu mu lu nuru nuru jamono loo xam ne jamono doog dafa xaw a naqari maanaam bu sëñ bi agsee rek mu bëgg fu mu ko gisee rek bëgg loolu nag moom lu ko yàlla defaloon la ci sa digganteeg moom kon nag ñu ngi ñaan baax yàlla sàmm la aar la ba liggéey bi nga xamante ni say say mag Cheikh Mahamadou Mountakha moo ko yëkkati teg ko sa loxo ñi ak ak mbooleem njabootu te ñëpp ànd ci rafetlu ko yàlla sàmm la aar la musal la ci gàllankoor yi yëpp ba fa fa nga ko yéene yóbbu nga nga àggale ko fa ndax sa yéene ci taalibe yi di rëy na sa yéene ci murit gi rey na lool ndax ñun ñi nga xamante ni ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi lay jege day bu taalibe yi xamoon waxtu wu jot li ngay jànkoonteel ngir bëgg ñoom ñu am dam am kaaraange te mucc maanaam loolu la jàppoon daan ko yokk kon nag ñu ngi lay ñaanal bu baax rek waaye rek sëñ Tuubaa moom mi ngi sa kanam kon nag yàlla na yàlla sàmm te jotaay bi mboolem ko fi teew képp koo xamante ni jëf nga ci donte dërëm la wala ay junni wala ay million wala sa jëf sa saw ñaq mooy ñett yi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa wax ne murid saadix ñetti ñetti melokaan yi rek la am bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati maanaam ñetti ñetti yëpp da nga koy mën a boole door doon murid saadix kon nag ñu ngi gën a soññ baax ci suñu bopp ci taalibe te di ko soññaat ñi nga xamante ne sañ na leen ko soññ bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jullit yëpp lay sant waaye tey nag kër kër am sëñ mét ci la noo ngi lay sant cant seen cantu bopp ñu jullit yëpp di sante sigal nga sagal nga nu sagal nga yoonu murid yëpp waaye kii rek la na am ndax suñu cër la kon nag soo ñëwee fii doonte ne benn minute la loolu dana rëy ci jullit yëpp dana rëy ci ñun te di la fàttali ne soxna naata mais de liggéey na liggéey boo xam ne jàpp naa ne sëriñ bi am na laltaay kon nag la sant baax ak sa mbokk mu baax mi nag ku bëgg mbokk lu mbooloo xat-xat mbokk mu ko jox loxo dana la dana la dana la xam ne daa loolu la ko seeral ko noonu la ko seeral baax a baax yàlla yàlla guddal soo fan lépp lu Serigne Touba di liggéeylu yàlla na ko eggale ñëpp sant nañ la ñu ngi sant baax jërëjëf Mbacke wallahi Mbacke temps bi ñu fi def caaxaan taxul ñu def wallahi wallahi waxin bi ñu gis ci te ko ci dara delloo insha allah rabbi insha allah rabbi la jur nag mhm. waaye bàyyi nañ la xel ah, alhamdulillah te nit ki boo ko jur jël ko fa nga xam kenn mënu ko caayam mm-hmm. nga def comme nawle mm-hmm. kon nag tegal sa tànk fi nga ko teg mm-hmm. te buy te dox ah, alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Mbacke na mbooloo mépp tàllal na mbooloo mépp tàllal Cheikh Mouhamadou Bachir Abdoul Qadir yàlla yàlla bàyyi la ci kanamu lislaam bi xëy na laay baax dox doxi woowu dem seeti kilifa àll yi nga xam ne ci dëkk bi monsieur le maire Cheikh Issa Sall léegi la yëbante kàddu nuyoo ak siyaar ak kàddu ku lu rëy ma la ko ci yow le maire Malikuna Maguette Sène noonu la ko defee suñu bàjjee Adja Issa Sène yi ñuy toog waaye képp kuy autorité ci diine moo ci aada ba ci kilifa diine nga xam ne yow nàkk bi ñu yëgee Cheikh Mouhamadou Bachir Abdou Khadre mooy ko muur ànd nañu ak sëñ Ismaïl ak ñi mu am waxaat alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi yow yàlla na nekk ci victoire islam te loolu فميدان الحياة عن واعمل تنا إن القول حال سابقون تسلموا هم العلا والخائب رقم dañ ñëpp taal sa loxo sëñ Ba Samba xaaral di naan yàlla yàlla dugg sa fan. danaa guddee nga fan. ñaanal ñaanal. programme bi day commencé ci kanam. ay wi moom gannaaw du jeex ndigal li moom bu nu ci yeex. julli gi doo toog rekk ba féex maxtaar mi xam nañ la mu doon seex julli julli sunna ga ca ngay gënee yéem farlu ga ku faatu kaat ku juddu ka du mu soppi lam naroon magam ju ja soxna may keroog ba muy wàccub liggéey ba fekki xaadim ngeen ji bàyyi mu soppi aw doxiin doomi sëriñ bi ñépp a di jaale seeg di yéem li xew donga yi yépp ñi ko aw ma wax la nag nan la defoon ba julli yoor yooram di jot mbooloo ma toog dani bërét dugg ca biir julli ko kër wér dafa jàngal xuraan julli su sax du ko faat du ne fi mbooloo tax mu faat yow mii ko topp bëgg a faat farata nekkuloo ci yoon waxtu wu ne lam wara def dana ko def na ngeen ji def te du ko wàññi du ko sof programme la yore woon julli gu neeg lam war def ci xeeti jaamu yam ko sëf te mësu caa sàggane sef ma wax la yow mii xamuloon seex jili nii la daaxee setam ga ak ni mu xaye njàpp mu sax la daawee roy na sëriñ bi ak yonen